bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wassalaam ala almabuusi rahmatan lil alamin sayidi alxalq ajmain sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina abilqasim almustafa muhammad wa ala ahli beytihi alladina ixtaarahum allahu wastafaahum wa jaalahum qudwatan lil alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki daara ji asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ndokkal sangu-sang yi muhammadin sallallahu wa alihi ak njaboot di ndokkeel sëriñ daara bi Mawlana Chérif Mohamed Ali Haydara ak mbooleem jullit yi ci bisu tedd yi nga xam ne ci la ñu nekk ne bisu euh, aj makk gi mel ni ujaaj gi sax léegi xaw nga mën a wax ne pare nañu seenuk aj wala boog la cee des du bare naka noonu ñetti fani tabaski bi itam fii ngay wax ne xam naa bu desee itam léegi du bare a paalen yeeg jangeen yeeg ndoyin yi na ñoo ko dese ba leen di ndoppal yéen ñëpp ci bisu tedd yooyu tey fat fet feddiliwaat sunu jéggulu sunu balu àq di baal ñëpp nag di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal waaye itam ñu jublu itam ci bis yu am solo rawatina bis bu am solo muy fukkeelu fan ak juróom ñett ci weeru tabaski yi nga xam ni bare na ñuy wax histoire islam te duñu ko tudd te mu nekk solo soo xam ne xaw ngaa mën a ne solos islam yépp nag mu ngi rëppeelu ci ndax xam ko xàmmee ko jàngat ko dafa itam lii tubaab bi di wax jël suñu courage à deux mains mooy nangoo seetaat sunu bopp nangoo jubbanti la jubut dëgëral la la dëgg la jub loolu itam dana tax jullit yi bàyyi ko fi ñu nekk jëm foo xam ne moo gën a koy foofu te loolu jàngat bis boobu ak la caqe muy fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru tabaski nekk na lu am solo bis boobu mooy ban mooy bis bu ñuy tuddee xadi ruqum xadi ruqum ab bërëb la boo xam ne mu ngi nekk diggante Màkka ak Madinatul Munawwara bërëb boobu nga xam ne sangu-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa téere yu bare bare bare te dinañ ci ñëw incha allahu ci xëy ci sunu deuxième ñaareelu daje tudd nañ ko ak xew-xew ba fa ne ñu bare bare duñ ci xuus di xëy na ay jaar-jaar yi politique ay yëngu-yëngu yoo xam ne xewoon na te loolu ci loola ba wala boo tudd loolu la nga xamante ne moom la indi waaye loolu bi nga ko rombee nag te jullit di nar a avancé fokk ñu tudd ko foofu lan moo fa xew mbokk yi danañ ci dellu si waat waaye balaa ñuy wax loolu dañuy wax ne la ca xew boo ko doon tënk dangay wax ne mooy problème mu njiit ci jullit problème njiit alqiyaada mooy leadership moo xewoon ca bërëb boobu te bu ñu jàngaatee li ci jullit yi yëpp bind nag mooy ne sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci ndigalal boroomam réglé woon na problème boobu waaye dañuy taxaw balaa ñuy xuus ci bunt boobu ak nam mu ko réglé moom sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci ndigalal boroomam dañuy dellu siwaat ci adduna bi ni nga xam ne moom la ko suñu borom bindee ci wàllu organisation ci wàllu kilifteef ñu wax ne suñu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi nga xam ne mooy matu mat ya la sommité de la perfection qimmatul kamal fi mat yëpp yem moom sangu-sang muhammadin sallallahu alayhi wa ali mooy seen njomboxtal ga moo ci gën wala boog ñun ñëpp boobu lu dul moom ceg matam nga ca ngay wutee mat matuk nit waaw matuk nit ñu koy léeg nga wax ñu ne mat yàlla rek mat waaw matuk yàlla matuk yàlla moom xëccoo ko kenn kenn du jëw du daw jëm ci waaw waaye natug nit nit day mat matug nit moom sang-sang yooyu muhammadin sallallahu alayhi wa ali lépp loo xam ne sunu borom subhanahu wa taala bind bind na ko nga xam ne ci moom la ñuy niitoo ca ga pour mën a xam fan lay war a teg tànkam lu mu bind moo xam galaxie yi la moo xam kaw gi moo xam biddiw yi la ak weer weeg jant beeg lu mu mën a doon nit ñeeg garab yeeg bàyyi ma yeeg lépp sunu borom subhanahu wa taala loolu mu bind nga xam ni moo gën a suufe sang-sang muhammadin sallallahu alayhi wa lu nekk da koo teg ci benn organisation benn tëralin woo xam ne du ko teggi ba mukk asamaan ak suuf kenn ku nekk mu teg ko fii falakin yasbaxun def ko ci benn orbite boo xam ne du ko du fa teggeeku ba mukk jant beeg weer wi asamaan si suñu borom subhanahu wa taala léeg-léeg mu wooñi afalam yanduru fi malakuti samawati wal ard ba gannaaw dañoo xoolul nag asamaan ak suuf ni mel ak li aju organisation bi nga xam ne ci laa ko teg du ko tegee ko ba mukk léegi léeg mu xool ñi afala yanduruuna ilal ibili kayfa xuliqat wa ila samaai kayfa rufiat wa ilal jibaali kayfa nusibat mëkk naa du ngeen seetlu du ngeen du ngeen xool du ngeen analyser lenn lu nekk ni nga xam ne ni laa ko tegee te noonu la dem ma yéen ci seen biir sax di waaw sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xool leen rek seen organisation ni ma ko ni ma organisé ngeen a nooyee yéen ñëpp ngeen niroole ko ni ngeen a lekkee muy fa muy reesee ni amee doom ni ngeen a leen lu nekk suñu borom subhanahu wa taala def benn organisation boo xam ne dañuy cee wan ni ñu borom xel yi afala yatafakkaruun afala yatadabbaruun li ulil alhaabi li albaabi li dañu xam ne borom xel yi war na caa xamee ne suñu borom subhanahu wa taala rek noonu comme sa mbir bàyyi ko bàyyi ko rek déedéet bàyyi ko rek ko dee rek musiba dikk bu ko defee leen lu nekk mu am organisation nu mu ko tëralee noo xam ne noonu lay demee pour war leen ne désordre suñu borom bëggu ci dara bëggu ci dara moo tax ba même li nga xam ne ay bindeefam yoo xam ne da leen a bind mu wan ñi ci misaal yu baree bare yoo xam ne yooyee du ñu sax évoluer maanaam nañ leen bindee woon ca asal te bu yàgg ba léegi si nag doxalin du soppeeku waaye dañ leen leen aw yoon woo xam ne fokk ci yoon woowu la ñu jaar wutal leen na njiit ndax une organisation fokk mu am ñu ko jiite ñi sax jënt beeg weer weeg suuf si ak yeneen yi nga xam ne ñoo leen topp nañuy dawee dañuy topp ñoom ñëpp daw ci orbitu jant bi fokk mu am lu leen jiite orbite boo gis am na galaxie yeeg yëpp am na koo xamante ne moo leen jiitu koo xam ne ko kooka ceeg dawinam ci la ñuy roy seen ak dawin wala ci la ñuy natt seen ak doxin mu wàññi ko ci yu ndaw ak yu mag ci njaa àll yi wala boog ci eh, animaux animaux yi li yàlla bind ñu joxe ci misaal mu demee ni ma eh, ki max ñuy tuddee al arada wala boog ñi ko tuddee termitière mu nekk yoo xam ne suñu borom daf ko def benn organisation boo xamante ne day am kilifa kii mooy kilif ki gi mooy digle ñuy def kii moo yore affaire armée bi kii moo yore affaire liggéey bi kii ñoo yore nangam ak nangam ñenn ñu nekk mu ut foo xamante ne fan leen teg pour organisation bi dox waaw bu ko nekkoon mu def leen ñoom ñëpp noonu sans mu wut leen kilifa waaye da ko wutal kilifa boo demee ci xorondong yi naka la boo demee ci yëmb yi naka noonu la boo demee ci yenn yenn giiru euh, euh, picc yi nag ñoom itam naka noonu lañ leen doxalee daa am kilifa ay nag sax boo leen boole wante benn yëkk dina taxaw joué rôle kilifa boobu pour wan la rek ne la waaw ne la lu mu baax baax fokk mu am kilifa goo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo koy yenkiwal pour mu def ko bu la mun jiite dafa nar a bon doomu aadama boobu nga xam ne bu la neexee nga wax ne mooy condensé mooy mulaxasu adduna bi mooy li nga xamante ne mooy bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bi yëpp pere yi ci gën a baax moom la ñu dajale muy doomu aadama boobu wala boobu nga lépp lu yàlla bind lu nekk compo na ci aslëf jël na ci une partie boole ko defar ci doomu aadama loolu moo tax mu mën a jëfandikoo lépp ci kaw ci suuf mu mënee fu nekk ndax fu mu dem rek am na fa loo xam ne moog moom ñoo bokk te loolu ñëpp amuñu ko waaw yàlla bind yëpp am na ci yoo xam ne fa mu leen teg dong lañ mën a dem waaye fuñ feneen fuñ dem rek waaye doomu aadama yàlla may na ko fu mu dem rek man fay nekk man fay jëfandikoo man fay jëriñi waaye nag mën na faa lor itam bu doomu aadama boobu nga xam ni gannaaw bu yàlla tëralee lépp mu normal mu defar ko ci benn ordre jël ay kilifteef teg ci biir jël kilifteef yëpp teg leen ci kilifteefu doomu aadama ne ko yow nag yaa yilif yëpp lu fi baax yow la wala qad karamna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min altayibaati wa fadlalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila ba lépp jox naa la ko bu ngeen bëgg a dem suuf fu leen fi ñax ngeen dem an tanfudu min aqtaari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultaan bu ko defee loolu nekk lu xam ne lu jëra ba xel la ba doomu aadama boobu ak gëdd googu nga xam ne moom la ko sunu borom wa taala jox sasu rëy woowu nga xam ne moom la ko jox ba ne ko nag defal ndànk li ma yépp kat aw mbaaxe la waaye aw sas la itam ab responsabilité la na xamal ne kat asamaan ak suuf lu fi yàqu rek booy boo xam ne yaw la asamaan ak suuf xamal ne lu fi yàqu yaa ko yàq yaa res wala boog yaa responsable waaw fasaadu fil barri wal bahri bul dawut lu wër lu bëri seet lu lu sore xamal ne rek bi ma kasabat ay dinaas ba doomu aadama boobu mënul ñàkk njiit njiit lu xamante ne sunu borom subhaanahu wa da koy defar ba mu romb yàq ak yàqu ba mu romb yàqu ak yàq maanaam ba mu ko deferee bu ko deferee da koy xamal lu xam ne bu ci jaaree lu mu dugg defer ca deferu ca te du ci yàq loolu mooy solo si yónni yónnanti yi mu yónni nga xam ne euh, bare nañ lool cent vingt quatre mille yónent yoo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala da leen a yónni ñooñu ñëpp ngir lan ngir ñi jaarale nit ñi fa nga xam ni bu ñu fa jaaree danañu jëriñu waaye itam danañu e, jëriñi te duñu lal loolu moo tax ba bu ñu xoolaatee yonent yooyu nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala yónni ci jamono bu nekk am na ñoo xamante ne ñoo leen di dévier ñoo leen di dëkku waaw lank ne jaar ci yoon wi xamante ne ñoom la jaar waaye li indi yàqu ga yëpp ci ñooñ la daan jógee waaye du jógee mukk ci yonent yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yonent yooyu kay dañuy yàq ñoom ñu bëgg koy defere ñu du ngeen ko fi coow li ni loolu moo tax ba nga xam ne suñu yeneen suñu yeneen yooyu nga yeneen yooyu nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yónni nga xam ne cent vingt quatre mille yeneen ak ñi leen remplacé bu ñu xoolaatee ci biir yeneen li ñuy seetlu moom mooy ne mbooleem yeneen yi ñañ tu tuddee ulul azmi juróom lañu cent vingt quatre mille boo ci génnee juróom yaakaar naa ne la des bari na juróom yooyu nga xam ne mooy ulul azmi ñoo yore woon li ñuy tuddee ay mission principale maanaam ñu xamante ne dañoo am lu ñu jël lu ni ñu mu jox leen ko pour ñu yóbbu ko jox ko seen aw xeet ñi des ñëpp nga xam ne tudd alxuraan tudd na ñaar fukk ak juróom ñi ci des ñëpp dañu ñëwoon ñoom pour lan pour leeral loola nga xamante ne moom la yonent yi indi woon mu bayyiniina shaariina wa mutabiqin te ñëwoon di leeral di firi di appliquer eh, eh, mission maanaam di jëf jëf say jëfloo nit ñi loolu nga xam ne moom la yonent yu mag yooyu mu juróomi yonent yooyu nga xamante ne moom la ñu moom la ñu defoon moom la ñu indi kon li ngay teg li loolu li muy tegtali bokk na ca muy wan ne sunu yonent bi sunu sunu borom subhaanahu wa taala amul benn jamono boo xam ne li dundub nit ñi ak seen ak doxalin yitteelu ko moo tax masu koy bàyyi mukk jamono mënoon na koy bàyyee yonent yooyu nga xam ne mooy ulul azmi wala mu bàyyee ko vingt quatre yi nga xam ne ñu tudd na leen waaye jamono bu kenn bàyyeekoo ci ñooñu nga xam ne mooy vingt cent vingt yi amul benn jamono boo xam ne dina toog boo xam ne kenn ci ñoom bàyyeekoo na fi léegi-léegi sax ñaar dajee wala ñett ci benn jamono yonti yàlla Moussa ak yonti yàlla Shuayb yonti yàlla Ibrahima ak yonti yàlla Luut ak ñi demee noonu waaye jamono am na si ñoo xam ne sax ñoo ñoo ñoo ñoo waaye jamono bu loolu amee rek li ngay gis mooy ni eh, kenn ku bu fi jógee rek fekk ne suñu borom préparé na kenn koo xam ne mooy jël ko kooku xamal na ko lépp loo xam ne fa la nit mën a jaar pour mu daal di jàll pour pour adduna bi mën a dox kooka nag dana woote danañ ko dégg wala duñ ko dégg waaye moom li wetteeru moom mooy kenn ku fi nekk sa mission mooy fexe ba loola nga xam ne mooy yoonu yonente muhammadin sallallahu alayhi wa ali commencé ci sunu maam aadama ba wàccee si ci moom ñoom ñëpp eh, loolu ñoom ñëpp seen liggéey moo doon leeral ko dong moo doon firi ko dong moo doon jëfee ko te woo nañ ci jëfandikoo sax yonent yi fi jaar yëpp comme niñ ko xamee da nga gis ne kenn ku nekk rek comme ni ko téere yu bare bare nettalee am na ñu xamante ne ñoo fi ñoom nga ñoom nga fi bàyyi gannaaw ba nga xamee ne yaa fi jógee yi ñu tudd leen ci tiir yu bare bare tudd leen yéen yi ñu juñ leen bu ñu demee ci yonent yàlla aadama amut sikk téere yu bare bare bare tudd nañu ni ka ko remplacé woon mooy Chine am nañu wax nag Sam Suisse di moy am na ci tudd yu tudd ci Sam ñu ne yonent yàlla Ismaïl salawatullahi wa salaamuhu ki nga xam ne moo ko remplacé woon bu yonent yàlla Ismaïl Haruna ka nga xam ne moo doon successeur am nekk remplaçant moo yonent yàlla Moussa di Moïse moo doon Haruna waaye comme di ko njëkk a jiitu Yuusa ibnu Nun moom mooy nga xam ne moo jëloon place am gannaaw ba mu ko Chapre ak Subayr nga xam ne ñoom lañ dippee Asan ak Useynu jël seeni place ñaari doomi Xaaruuna yi ñu continuer mission ba donc mboolem yonent yi nga xam ne jaar nañ fi kenn ku nekk amoon na koo xam ne moom la yàlla préparé comme yonent yàlla Isa nga xam ne mujj gën a def sang muhammadin sallallahu alayhi wa ali même fekkee am na ñu bind yeneen i ñaari yonent yu fi jaar si diggante mook moom waaye moom ci ulul asmi yi la bokkoon Samoun moo ko remplacé woon bon ñooñu amul benn jamono boo xam ne amut yonent boo xam ne jógee na fi te amut ñu ko remplacé ñoo xam ne moo leen di désigner boppam ci ndigalal sunu borom subhanahu wa taala yëpp bon koy loolu li muy tegtale boo ko doon wax ci beneen waxin waxa woyof mooy daa yàlla doxalinu adduna bi yépp ñu war saytu doxal ko ci anam woo xam ne dana nekk lu jaar ciw yoon nit ñi di fa xéewlu di fa préparer seen ëllëg gi nga xam ne moo ëpp doole te moo gën yàlla wóoluwu ci doomu aadama kese yi bàyyi bàyyi leen ko bu wóolul ko ñu def ca tànn ka da def lu leen neex wóoluwu ko fok fokk jamono bu nekk dina am koo xamante ne mooy sëpp mbooleem ñi nga xamante ne ñoo fa nekk loolu moom la wane ci yónnet yónni yónni yónnent yooyu nga xam ne moom la yónni ak mu yónnent yu mag yooyu ba leen mën a tuddee lool ulul azmi wala ñi nga xam ne ñoo jël seeni place di leeral seeni jàngalin tey doxal seeni Euh, euh, liggéey bon yonent yi yàlla moom wane woon naw yoon wax na ko itam ci ay aaya yoo xam ne leeral na ko ci wane loolu itam du dagg ndax sunu borom subhanahu wa taala moo wax ne yàlla inna allah istafa adama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala al alamina zurriyatan baaduha min baadi mu ne man de maa maa Euh, tànn Adama ak Nuux ak ñooñu Ibrahima effectivement ci la bokk ak ñooñu Imran ñoo di waa kër yonent yàlla euh, Isa yi alal alamina au-dessous de toute l'humanité la wax mboolem li nga xam ne moom la yàlla bind ñooñu nag zurriyatan baaduha min baadi génération bu passé rek indi beneen dañuy teglantoo rusul yooyu suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alxuraan naan tatara dañu toppalante xam ni ko eh, borom i xam-xam yu bare bare firi loolu suñu borom mas da dagg jamono bu nekk mu am koo xamante ni moo ki fi nekkal ba sax loolu xel mu rafet ci ni boppam mooy war a mooy war a xàmmee ne li tuddee vide juridique bàyyi aw gétt goo xam ne amut ab sàmm bu paree nayet wut ak ab sàmm bu leen sàmm loolu itam wax dëgg yàlla euh, xaw naay euh, kéemaane loolu moo tax ba suñu borom subhanahu wa taala comme ni nga nga xam ne jamono bu nekk wut na ka gën ci ñoom ci ñooñ jamono teg ko ci place ba nga xamante ne mënul ñàkk te mooy kilifteef yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali jàngale ko yonent bi mës na génn Medina mukk benn bis boo xam ne wutul benn gouverneur wala benn euh, koo xam ne rek mooy moo koy remplacer nekk ci Medina toog ko fa buy takk guerre moo xam li ñu tuddee guerre la wala expédition mooy boo xam ne dañuy dem mu ànd ci wala boo xam ne day yónni day wut ay généraux am yoo xamante ne ñoom laay teg ci yoon bi boo xam ne ñooy yëlif yoon wo feeg baa muy dikki wala koo xam ne mooy yilif dëkk bi feeg baa muy bayekoo moom ca xare booba di dellu si waat ci dëkk ba masu da bàyyi benn boo xam ne du désigné ne kenn koo xam ne moom moo fay nekk pour wan rek solo si nga xam ne moom la njiit am ndax njiit mooy takkee aw nit yoo xam ne dañoo am lu ñu bokk am fu ñu jëm am lu ñu bëgg am njiit la moo leen di takkee pour ñi góorgóorlu jëñaxu jëm ca loolu nga xamante ne moom mooy seen bëgg-bëgg ñoom ñëpp bu amul rek duñ ci dem wala bu ñu ci àggee pëcc xuuja wala moo tax yonent bi jàngale na ko dañuy sant sax nañu yéen bu ngeen di tukki wala sax bu ngeen nekkee ci bërëb nekk fa ñaar rek nañ seet désigné kenn koo xamante ne moom mooy nekk nji njiit la waaw moo tax itam lu ne daj na ko waaw lu ne daj na ko lu ne itam def na ko pour problème mu njiit am léegi comme ni ñu ko waxee ci wàllu woowu bon leer na ni suñu borom subhanahu wala suñu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali jàngale nañu ne yàlla du bàyyi aw xeet mukk benn jamono bu dul seet na tànn ci gën ca ca jamono teg ko mu nekk ka nga xamante ne moom moo leen di jël ke leen ëpp xam-xam ke leen ëpp njàmbaar ke leen gën a tabe ke leen gën a ka leen gën a ka leen gën a ka leen gën a afa man yahdi ila alxaq axaqu an yutabaa man laa yahdi ila an yuhda hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ndax ki xam la ñuy laaj wala ke xamante ne balaa mooy wax daa laaj ci jëkk ma duñ seet ka moo laaj yem ndax ki xam mën naa yem ak ki xamut loolu yëpp bon wane na ne sunu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci njàng ci ndigalal boromam mas da bàyyi xeet mukk sunu borom itam mas da bàyyi xeet mukk benn jamono boo xam ne duut am na koo xamante ne moom la jey teg ci yoon bu ñu demaatee itam bu ci adduna bi dañuy gis ne mboolem organisation mboolem euh, yu kii yu mag yi fi nekk moo xam mu daka ab mboolem euh, yi nga xam ne ñoo fi nekk moo xam yu yu yu mag yow comme nguur yu mag yoo xam ne maa ngi barki démb rek wala démb maa ngi liir euh, le centrisme lañ koy tuddee xaw ma bu japonais yi ak seen organisation bi léegi na mu juddoo na mu nangam ak nangam mag fañ dañ ko kii ak la muy leen jëriñ nag am kilifa ga nga xam ne moom la ñuy wutal seen bopp ak kilifa boo xam ne dañ ko théoriser wala taoïsme du fële ca euh, dëkk ba ca ci Chine wala ay organisation yu mag a mag a mag ci perse yi ci nangam ak nangam ñoom ñëpp da ngay yëg ni kenn ku nekk da ngay yëg ni balaa ngay avancer balaa ngay def dara balaa ngay taxawal dara day fekk ne da nga am benn organisation organisation boobu ñu jël njiit teg ci kawam boo xam ne dugul njiit loo xam ne jamono bu nekk dañ koy tànn waaye jamono boobu dañ jàpp ne suñu borom subhanahu wa taala moo leen ko tànnal loolu yokk seen ak réussir xadaasa biñ koy jox loolu moom mooy li nga xam ne mooy yokk seen ak yegg fa nga foofu nga xam ne moom la ñu yokk boo demee ci yeneen organisation yi itam nekk la adduna bi mën nañ ko bàyyi rek waaye heure buñ jàppee ne ndax adduna bi mu mu mu mu ngi jaxasoo la ñuy daw mooy buñ jéemee ba réglé ko ba jàpp ne réglé nañ ko dañuy jël lenn loo xam ne même bu fekkee ne awut yoon waaye dinañu teg loo xam ne jàpp nañ ne mooy lii wut ay kilifa yoo xam ne ñoom lañ teg ne ñoom ñoo ko ñoo ko yore pour loolu mën a dox bon ñëpp gëm ne kilifteef dafa war a am waaw même ñi nga xamante ne doxaluñu ak yoon jaaralewuñ ko ak màndu terewut dañuy jël aw yoon woo xam ne moom la ñuy teg ne kilifteef dafa am bon kilifteef moom ñëpp ko gëm bon bu fekkee ne jullit yi ñoom euh, sang sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi dafay jóge ko mu am ñaari ñaar wala ñetti kuréel boobu moo xam ne foofu la séddale ko te dañ ñëw ci incha allah ci suñu dajee bii ñëw yu dëpp ak dogal a borom bi ñi jàpp ne yonent bi de muhammadin sallallahu alayhi wa alihi daa bàyyee mbir mi rek nit ñi ñoom ñooy tànn ku leen neex ba ñooñu dañu jàpp bi xadaasa bi nga xam ne lañ ko war a jox muy E, côté spiritualité bi nga xam ne moom lañ ko war a jox jàpp ne suñu borom subhanahu mooy ko yénkeewal ay xam-xam yoo xam ni moo yenu mbooleem xam-xam bu doomu aadama war a soxla mbooleem bu adduna bi war a soxla yàlla roof ko ko nam ko roofe woon sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ñoom dañ jàpp ne rek ab njiit la moo tax ñu ne ku nekk mën nañu jiite mais bon yàlla dañuy bàyyee mbir mi ñu tànn ndax ku xamul biir mënoo xam tànneefu ñi waa waa biir ba ñoom tànneefu kaw la ñuy tànn ñi daal di tànn ñeneen ñi ne ah déet ni nga xam ne moo daan dox kat yàlla mi nga xam ne moo wax ne moo tànn safa eh, na la safa dama woon an waala ibrahima waala imrana alal alamina loolu day continuer fekk alama ngi fi fekk dina baa ngi fi na yàlla daan tànnee nag ba léegi ni lay tànnee du tere nag am na ay kilifa su sujeer yu nekk ci côté bi yuy doxal mbir ma waaye kilifa gu mag gi moom jamono bu nekk suñu borom moo ko tànn yénkeewal ko da nga xam ne moom la ko yénkeewal te yooyu ay xadis yu bare bare ñëw na ci yoo xam ne day dëgëral loolu ak ay aaya alxuraan loolu comme ni ñu ko waxee dinañ ci si waat léeg-léeg sax ñi dem ba ca kanam ñi ni waa moom dëgg-dëgg sax ñoom réussir nañ ndax yaatal nañ islam yóbbu nañ ko foo xam ne yeggu yeggu fa woon bon loolu mën nañoo jàpp ne ak réussir la waaw guerre nañu te saare islam mu dem foo xam ne yeggu fa waaye loolu mbokk yi dañuy xool jëf ja ak la mu jur premier mooy alquran suñu borom subhanahu wa taala wax ne moom islam bii da indi lu yuzhirahu ala diini kulli pour mu nëbb mëdd mbooleem lu dul diine yàlla jiite mooy islam ci côté yëpp la nag ci côté matériel ci côté spirituel ñoo leen war a gën ci côté moral ñoo leen war a gën jikko leen koy rafetle ba ñëpp xeme ma ñëw ci ñun def suñu jikko rafet ñoo leen war a gën gën a bëgg suñu borom subhaanahu wa taala ba gën leen a xam xàmmeel leen yowmal qiyaam ak alaxira la nga xam ne moo fa xew ba loolu gënal ñu adduna ba nga xam ne suñu jëf yëpp loolu moo koy moo ko moo ko niital waaye adduna bi itam kenn dañ cee war man man ba nga xam ne dañuy féetiwoo yalwaan waaw qul man xarama zinatallahi allati uxrija li ibaadihi wa tayibaati min qul yaa alladina amanu fil xayaati dunia xaalisan yawmal qiyaama lu neex léeg lu baax léeg lu sutura léeg lu sell li yéen a ci gën a yéey fii ci adduna alaxir nag yéen rek ko moom la ma ndax loolu am na bu ñu xoolaatee tey ci jamono bii ñu nekk nga xam ne gars yi ni ñuy faral li nga xam ne mooy faral di am mooy li ñu tuddee nouvel ordre mondial nizaamul aalam al jadid nga xam ne am na yu fi amoon daanu ruum yi mos nañ fee moom perse yi nañ faa moom ñeneen ak ñeneen mos nañ fay moom après deuxième guerre mondiale gis ngeen am américain yeeg ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal am na beneen nouvel ordre bu ñuy jéemaat boo xam ne lan moo ci war a taxawaayu jullit bu ñu fii nga xam ne fi la ñu taxaw ak ñi nga xam ne ñoom la ñu ne li ñu tuddee la cartographie des musulmans li nga xam ne mooy xarifatul alamal islam yi buñ ko xoolee ak doxalin wi nga xam ne moom la ñuy doxale da yëg ndeg ne marché ba bu gën a suufi bi nga xam ne mooy mooy war a jeex nii ci la ñu toll ci la ñu nekkaat ndax daw làqu rek ci lañ nekk fi ne ñun ñëpp dañuy daw fi ne di làqu kenn fexewul joué ci rôle ba nga xamante ni mooy rôle leader waaw dawrul xiyaada boobu nga xam ne moom la ñu waroon a jëlee nga xam ne moom la ñu suñu borom subhanahu wa taala woowoon fasewu fasoowuñu ko bon ñun bu ñu yàkkalee itam ras nañu ndax lu ñu yonent bi doon bañ ba ba ba bañal ba wax nit ñi bañ ngeen nekk am mboob moo xam ne ndox mu ñëw yóbbuwaale la ñu dafa mel ni ci la ñu nekk waaw dafa mel ni ci la ñu nekk ndax suñu lépp rek dañ ko yóbbuwaale daw ñu jëm fenn foo xam ne mooy daw jëm ne dañoo war a ànd dañoo war a delloo dañoo war a seetaat suñu bopp loolu problème la bu ñu xoolaatee mbokk yi carte adduna bi ñi nga xam ne ni lañ dawee bu ñu xoolaat bu ñu delluwaatee ci recensement yi nga xam ne ñu ngi ko defoon en deux mille treize ci adduna bi environ sept milliards quatre-vingt-quinze millions deux cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingts personnes mom la ñu recensé woon ci jamono boobu ne moom mooy li nga xam ne mooy li nekk ci adduna bi ñu ci loolu buñ ko xoolaatee dañuy gis ne lu war a mat cinq millions zéro huit cinq milliards di moyes ay nit yi lañ ñoo xam ne am na diine buñ gëm juróomi milliard ak juróomi téeméeri million ñu ne un milliard ñoom ñooy ñi nga xam ni dañoo wax ne soit ñu gëmuñu yàlla wala ñu ne ñoom daal toppatoowuñ mbiram diina al mulxiduun aw ala diiniyun xoolal diina jooju nga xam ne sunu borom da ko indi woon li ziru ala diini kulli mbokk diinay masixiya moo occupé ba léegi première place bi avec trente et un pour cent ci population mondiale bi trente et un virgule cinquante pour cent ci jamono boobu te seen estimation yooyu ñu wax jullit yi daal di ñëw ci vingt trois virgule vingt pour cent loolu boo koy xool yegguñu sax ba léegi ci un quart li nga xam ne mooy population mondiale kante boo delluwaatee ci yahuud yi nga xam ni zéro virgule vingt deux pour cent ci la ñu toll environ quinze millions ci adduna bi yëpp quinze millions adduna bi yëpp environ quinze millions lañ ci toll zéro virgule vingt deux ñun ñu toll ci vingt trois virgule vingt vingt ñoom ñoo yilif adduna bi yëpp yeneen diine yi nga xam ne moo moo fi am bare na yeneen yoo xamante ne nag Euh, taxuñ koo bare lool kom ni nga waxee woon euh, ñooñu nga xam ne ñoo nekk Chine ñuy taw yi taw yi wala ñi nga xam ne dañ ñoom gëmuñu benn diina wala nekkuñ ci benn diina ak ainsi de ñëpp kenn ku nekk am na pourcentage boo xamante ne moom nga yore waaye ñi nga xam ne moo ëpp doole muy chrétien yi. jullit yi bu ñu xoolaatee jullit yi vingt trois virgule vingt pour cent la ñu occupé waaye en fait li nga xam ne moom la ñu mënal seen bopp li nga xam ne moom la ñu toll ci mënal ko seen bopp wala ñi nekk ko euh, yëlif ko wala nekkuñu ci surga wala nekkuñu ci euh, euh, to ay soppe da xool ne presque représenté wul dara ci adduna bi loolu nag mbokk yi ak ni ñu yàlla di di digaloon walillahi al izzat wali rasulihi walil muminin puissance ak capacité ak euh, compétence ak xam-xam ak nangam ak nangam ñun jullit yi ñoo ñi nga xamante ne ñoo ko raw ndax ñu ngi koy tibbee ci sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu jëlee ko ci suñu borom subhanahu wa taala bon bu ñu tolloo ba nel nii dama ne taxaw seetluwaat baax na est-ce que yoon wi ñu jaar woowu est-ce que yoon wi ñu jaar topp rek naa defoon na nangam ak nangam ak nangam di li ñu tuddee loi naturelle mu yàlla tëral ni jaar leen fa bu ñu ko résister ci début bi man naay nekk lu am lu ñu nirul lu am njëriñ la walla lu baax la waaye bu ñu demee ca kanam rek dangay gis ni bu fuddoo rek dana non seulement dana gaañ waaye dana gaañ ñu baree bare dana yàqu ba noppi gaañ lu baree bare est-ce que du moo ñu dal kon fokk ñu seetaan suñu bopp fokk ñu xoolaat suñu bopp fokk ñu xoolaat jàngat suñu histoire ñeme ko si suñu siira ñeme ko gis ne jullit yi bi fi sang-sang muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ko tëdd ken den jëgul ko ñi commencé di xeex di rayante ci seen biir période bu nekk ñoomu neen la ñu rayagum ci ay jullit ray ko ay moroom xeex yi nga xam ne moo déclenché wu entre les musulmans ba tey jii bisu tey bii ñuy wax jullit xeexu ko ak moo ak ba tey jii tey jii nañ xool histoire cartographie adduna bi li nga xamante moo ci am ak guerre yi nga xam ne moo fi am ba nag loolu yaakaar naa ne war naa taxaw ñu xool nag seetaat suñu bopp ba xam ndax il n'est jamais trop tard ar rujuu ila al asli aslu koo fa ngay jëm nga dellusiwaat fa nga jógee woon wa man arada an zikri ku fi nekk ci ay jafe-jafe nga fekk ne da ngaa bàyyi rek yoon yu ma la tegoon wa man arada an zikri fa inna lahum aysan dankan inna hada alqurana yadi lillati hiya aqwam li gën a jub li gën a baax li gën a sell li gën a aw yoon li gën a màndu loolu moom la ñu alquran indil bon buñ nekkul ci loolu am na mbir lu tax ñu ñi topp ñi imaam Saadiq salaamu laahi alayhi doona duutu kuunu du'aatan ala naas bi xëyri alsinatikum seen comportement seen doxalin seen xam-xam seen ak yaatu seen ak mbaax na ngeen fexe ba mu nekk li nga xam ne mooy woon nit ñi jëmale leen ci li nga xam ne moo leen di jëriñ te mooy li li li sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi indi bon bu fekkee loolu yëpp dafa am problème ci jamono yi nga xam ne ci la ñuy dund wala boog ba islam xëyee ba léegi daanaka ci loolu la ñu nekk war nañoo taxaw nag seetlu seetluwaat est-ce que fiñ jaar foofu la wala déet te ñeme ko nag waaw ñeme ko ñeme ko ba doon wax naan asabiya muy le fanatisme par far far farlantoo nee na nekkul ne nga ne nga bëgg nga bokk kuréel yi nga bokk dëkk bi nga bokk xeet bi nga bokk réew ma nga bokk waaye asabiya mooy même sa waa dëkk wala sa waa kuréel wala sa waay sa say waay eh, ñëw la fa yiis wala ña fa gën a yiis sax ñoo la gënal ñu gën a baax ca ñëwee weneen weneen wàll problème la waaw problème la waaw ba nag fokk li imaam ali alayhi salaam waxoon law takaashaftum lama taadaytum bu ngeen xamantee rek noonoo jeex bon waxtaan dana am te bu bu waxtaan amee gindandikoo am bu ko defee weccoo am comme ni ko imam Saadiq salaamullahi alayhi waxee woon ixtilaaful ulama yi ne du ixtalafa anhu waaye a ilayhi la ixtalafa anhu mooy ku nekk wuute sa morom jàpp ne li ma jàpp rek kay dëgg ixtalafa ilayhi mooy kenn ku nekk la nga am nga yéene ko sa morom dem jox ko ko ngeen jàngat ko séddoo ko la ca baax ngeen ko la ca dawut noonu ngeen yóbbu ko la ca lañ ca mën a jubbanti ñu jubbanti man kat lii wii nga xam ne buñ ci jaaree ñooy yëlif adduna bi waaye kenn du ñu yëlif ñooy nekk sëriñ ci waaye du ñu nekk taalibe ya ñooy nekk njattigee waaye du ñu nekk surga sa ci lépp nag ci jikko ci koom ci technique ak ci scientifique ci njub ak jubóog suñu borom subhanahu wa ak mbaax ak ak jàmm ak am jàmm nga xam ne mooy islam mooy jàmm loolu yëpp de wóor na ne moom suñu borom subhanahu wa taala garantil nañu ko bon buñ ko amut jar ni ñi taxaw na seetlu seetluwaat fu mu sooxee ñu jëm ko jé jëngati est ce que yonent bi moom defoon na wàllam ba pare ba tracé ñu yoon yi fa nga xam ne foofu la ñu waroon a topp ba buñ fa toppee dee moo ko waxoon ne taraktu ku ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaaballahi wa itrati ahla bayti bàyyi naa ci bàyyi naa leen nga xam ne bu ngeen ci toppee lan tadillu baatu dalla la indi dalla mooy du ngeen wuute ak seen njëriñ du ngeen wuute ak seen teraanga du ngeen wuute ak am jàmm du ngeen wuute ak texe fii ci àdduna du ngeen wuute ak am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala ci àllar sama gannaaw de yoon wu leen di jëbale ci loolu rek ngeen di nekk waaye du ngeen nekk mukk ci loo xamante ne yoonu safaan la ñu ne ko mooy lan mu ne mooy kitaab allahi téereb suñu borom subhanahu wa taala bii mooy alxuraan nga xam ne moom interprétation yi ku nekk interféré na ci maa ngi lii rek fan yi bi may eh, rek benn aaya boo dugg rek da nga fi gis fukki interprétation lu ko ëpp kenn ku nekk da wax say waxi bopp bon fokk mu am koo xamante ne mooy mel ni sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali suñu borom subhanahu wa taala jàngal ko la mu ko jàngaloon mu ñëw jàngale loola ba mooy nekk marjaul kabir delluwaay bu mag bi nga xamante ne fu ñu réeroo fu nekk bu ñu delluwaatee ca mu tegaat ñëw ci yoon ñu njëg ñu lan la ci sa ngi bi wax est-ce que daa xaar ba ci dernière minute mu wax ko est-ce que teel naa wax ne kii dee muy imam ali alayhi salaam moo may remplacé mooy boroomi xam-xam bi kan mooy imam ali moomu alayhi salawatullahi wasalaamu alayhi incha allah bu dëpp ak dogalam borom bi ci suñu daje bii ñëw nii danañ ci dellu siwaat moom itam génnee ci ay njàngat pour seet ba xam ndax waaye dañuy jël suñu courage ba nangoo jàngataat suñu histoire jàngataat suñu siira jàngataat sunu doxalin seetlawaat analyser waat adduna bi ni muy dawee ak li nga xam ne moom la ñu yàlla digaloon bu ko defee xëy na ñu tegu ci yoon woo xam ne bu buñ ko defee mu nekk suñu njëriñ buñ ko defut borom dana indi boo koo xam ne muy imaamul mahdi ajalallahu farajahu sharif dana ñëw forcé ñi ci na fekk nag booba ñu préparé ndax kat moom ku ko bañal rek abut sikk ni foo foo foofa kenn duggut foofu ngay jëm doo texe adduna doo texe àllaaxira balaa boobu nag ci fi ci rajo Moussaïr FM 93.2 di kaddu njabootu yonent bi ci complexe imam Aliou alayhi salaam ci Fass Mbaw ci eh, Zac Mbao ak ci Kolda di Zahra FM 93.8 ak ci mboolem médium ak plateforme yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci waxtaan bi mu doon seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa